waaw tey maa ngi ñëw fii ci Kër Massar ànd fi ak préfet bu département bi su préfet bi ak maire bi ak ñëpp ñi nga xam ne autorité ñun surtout sapeur pompier pour xool si fan la liggéey bi toll. parce que déclenché nañu plan Orsec instruction yi président joxe dégg nañ ko ministre de l'intérieur tam répercuté ko donc ñu ñëw ànd ak sapeur yi pour xool liggéey bi ndax mi ngi dox. deuxième chose bi tax ñu ñëw mooy ñu xool également population bi. parce que ñu ngi dund xëy na ay moment yu affaire yu yu yu yu jafe ñu ñëw donc jël gaal gi euh, dugg dem seeti leen déglu leen dégg leen waaye it waxtaan ak ñoom wax leen ni ñu ngi liggéey pour que vraiment situation bi retourner revenir à normal normale. Euh, ba ñu demee itam dégg leen euh, wax leen message bi ñoom it vraiment dégg nañu ak ak déggin bu nga xam ni moom la ñuy xaar ci ñoom avec dignité ñi nga xam ni nee nañu ñoom dinañu nangu ñu reloger leen temporairement. dégg nañ leen am na ñu si jot sax recensé ñeneen ñi am na ñu ni ñoom dañu préféré comme fi ñu nekk baax na ndax ña nga étage xaarandigum ba xam fan la situation bi di mujjee. donc ma xamal ni ñëpp nii lii nga xam ni tey mooy point Camibas euh, sapeurs yi ñu ngi liggéey ak des moyens des engins lourds pour que améliorer dispositif de pompage bi yokk capacité de d'absorption bi donc am na ligne bu ngeen gis nii mu ngi dox benn ligne de 800. ñi ngi installé beneen ligne de 600 bu moom la machine bi di dugal noonu boobu tam bu doxee ànd ak li nga xam ni mooy dispositif souterrain bi nga xam ne ONAS def na fi je crois que suñu pompé ku ko sentirul léegi it bu ñu pompé yëpp di nga sentir ni vraiment niveau ndox bi wàññeeku na. ñi ngi travailler également pour reloger sinistrés yi jàppale leen également ci wàllu dund accompagner leen également ci wàllu santé donc liggéey bu yaatu la ñi ngi ci ca bu soobee yàlla bu ñu noppee di ngeen gis ni mbir mi changé na bu baax.